waaw euh, Alaaji Pape mm-hmm. xam nga diggante ñaari fan yi diis na lool ci senegal mm-hmm. diis na lool mm-hmm. waaye nag ku dul may sa bopp lu ñu la may nga jël dëgg la de amoo pexe sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni am na loo xam ne boo ko pertee dangay ngay wax ne lillahi ma ata wala ma axada ki moom yëpp lu mu jël rek dañ koy sante ah. waaye mu jar tiit nag ndax bu ñu fi ñàkkee barki dem ba rek Cheikh Béthio Cheikh Béthio ak li mu liggéey ci yoon wi mu bokkoon Ah. ma ni weetul de. waaw mais loolu mooy sant yàlla. Mhm. sant yàlla mooy nit ki bu la yàlla indee ci àdduna marqué sa empreinte. Mhm. parce que kenn saxu fi. Mhm. ku marqué sa empreinte rek ñu waxtaane la ëllëg. ku marqué wuti dinañ la waxtaanee ëllëg li nga tàyyal. kon bu yàlla dogoyee la soxna si génn fi barki dem ba. wala mu génn fi tey. bàyyi fi doom ju mel ni sëñ Abdou Karim. ci lépp nag. xamante ne bii Abdoula Karim la. Abdoula. Karim Karim la macha parce que li tax ma ne Abdul Karim la. mooy nangu na li ko yàlla jox. nekk jaam. waaye nangu na li yàlla def ci moom mu partagé kook ay nit. ba ut kuréel gu mu tuddee makaarimul axlaaq. wallaahi te makaarimul axlaaq. moo tax yàlla tànn si ñu Seydina Muhammad indil ñu ko pour mu def jukko yooyu ci ñun donc kon ñu ngi koy massaw macha allah am na fu mu dencee naqar bi nag mm-hmm. moom mm-hmm. am na fu mu ko denc mm-hmm. du ko déranger waaye ku ñëpp jooyal warta jooy jorool jooy wolof nee na ku ñuy ñàddul doo ñàddu macha allah yàlla may ko gën ko may xolu amin amin kon moom euh, sëñ Abdou Karim Mbacké ñu ngi ñaan mu yàgg fi te ànd ak wér euh, tey itam Sénégal di fàttaliku euh, Serigne Saliou Amar doom ci Cheikh Amar bokk ci kër gi euh, moo tax euh, duñu tàmbali mukk te duñu ko euh, fàttaliku nekkoon xale yàlla moom day jël ay décision am noonu rek te kenn du ci mën dara xoolul mag xoolul xale bi mu yóbboo xale bi ñëpp a ko ñëpp a naqarlu mais tey télévision Futurs Médias di ko fàttaliku di masawu waajuram di Cheikh Amar président Youssou Ndour Birane nduur mi nekkoon xaritam ak kull koo xam ne rek da nga bokk ci njabootu Serigne Saliou mi ñu ko fayee moom tey ñu ngi koy fàttaliku yàlla mel nii Pape jàng rek lañ ci war def jàngat. benn waaye dafa romb ci ay armeel bi mu rombee armeel yi mu gis benn benn benn la kenn waxul mu geestu ci dëkk bi di yëgg dëkk bi toj. mu ne ñi nekk fii de li ñuy rëcc lool la ñee di coow. ñi nekk fii ci armeel yi. li ñuy rëccu loolu la ñële di xëccoo di ci ba mu jural leen coow waaye ñun ñoo ci war a jël bind rek. tant que yàllaa ngi jël ñu ndaw ñi. di jël ñu baax ñi mhm. ñun ñoo war a jël bind ci dee yi ak ak metti métti yi pour que ñu mën a tabax suñu dund pour mu mën a jëm kanam pap mhm. yokk góor góor lu yokk taxawaay mhm. ndax yàlla man ñuy ñeewante bu baax a baax ku gis yi xew ci pénc mi jekki-jekki rek ay lakku deux heures du matin trois heures du matin muy lu garaaw ah ba pap moo tax war na ñoo fagaru de waa ndax tollu ñu mu jëm jamono ah sorewuñ ko na Pape. sorewuñ ko parce que bu nit ñi melee yenn melokaan yi. sunu borom day alerter. wa maa nursilul ayat illa. yi reyante bërëb yi lakk. kilifa yi di dem. loolu rek ñu baax ñi mel ni yàlla da koy xëccoog ñun. attirer suñu attention rek lay def. maanaam bu ñu changé position rek. Mhm. yàlla defaraat yàlla defaraat affaire bi. Mhm. kon nag dañ ci war a gën a bàyyi xel bu baax a baax macha allah. Mhm. te li mu wax sànq ci riba bi. xam nga riba day tax yàlla di rébélé ñu baal ma ci baat bi baatu rébélé ñu baal ma ci baat bi. parce que yàlla dafa wax ni ñaar ñaar. ku ci nekk pare naa pour songoog yow. kuy kuy seex deru wallaahi parce que kuy seex deru waaju baax yàlla pare na pour songoog yow su ma waxee waaju baax nag tekkiwul ne ku sant sant bi wala ku sant sant bale mm-hmm. mais koo xamante ni kii digganteem ak boroomam mi ngi ciy góorgóorlu rek waaju baax la ku seex deram rek yàlla pare na pour songoog yow beneen bi ci des mooy kuy dunde usure mm-hmm. bi boo ci nekkee yàlla pare na pour songoog yow moo tax ngay gis ko dem ba ca kaw jékki-jékki rek chuté mm-hmm. te du xam lan moo ko chuté yàlla nañ ci yàlla dolli sutura oustaz riba boobu dama ci am par exemple yow miy dem di leb banque